leen mbokk yi yéen ñuy bàyyi xel télévision bu Saloum juróom-ñetti waxtu moo jot ñu dikk ak yéen ci xibaar yi xibaar yi ponk yi ci gën a fës ñeel bëccëg gi ñu toftal nag ca ba ñu dooree li li nga xam ne ni moom moo di ab ndaje waxtaan dox nag ci zone militaire numéro 3 bi nekk file ci diwaanu Kaolack ak réewum Gambie ñoom nag lañu doon waxtaanee ci bëccëg gi bokk na ci tànk yi nga xamee ni moom la ñu war a taxawal ngir rek euh, jëm euh, ci euh, patrouille boobu nga xamee ni fas yéene nañu ko amal ci biir frontière yi dox ci diggante Sénégal ak Gambie ak la ko wër yaatal li ci biir jotaay xibaar lay doon suñu mbokk yi nekk ci jàngu bi di waajal nag li nga xame ni. moom moo di ajuma ji ñu nar ci amal nag ab fête jëm rek ci wàllum defarum lax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci biir marché yi di jaay lile di buy tigadege naka noonu ñi ngay xam ne ni gisaguñu seen bopp yattali ci biir jotaay xibaar lay doon mbokk yi ginnaaw loolee dinañ ci toftal xibaar yi biti réew yi loolee nekk foofu gën a fas yéene taxaw na ci yaatali nuyuwaat nañu leen xibaar yi ñu doore ko comme nañu leen ko junjee woon ca bopp ba ci waajal nag ab opération de sécurisation jëm rek ci frontières yi ñu amal nag ab réunion boo xamee ni dem def nañu ko ci diirub ñaari fan dox ci zone mili diggante zone militaire numéro 3 bu Kaolack ak deuxième bataillon d'infanterie ba nekk ci diwaanu Gambie mu nekk nag ab waxtaan boo xam ne ni daad nañu ko samp ngir nag waxtaan ci biir yooyu nga xam ne ni fas yéene nañu ko amal te noonu commandant zone militaire numéro 3 daal dina cay porndol rek ni ay séance de consultation Madame ab gratuite daal nañu ko amal ci biir patrouille yooyu jagleel ko askan wi colonel Juma Sow di commandant zone militaire numéro 3 à ci micro télévision du salon. ñu teewlu ko. comme ni ngeen ko la xam nga frontière est foo ko gis et nous bëri profiter pour def naka su nous noonu am na dëkk yoo Euh, euh, euh, daanaka dafa mel ni champ de bataille la ñun yàlla sutural nañu loolu yëpp amul mais am na ñoo xamante ne day traversé ci ñaari sens yi tey nga xam ne jigul réew mi loolu mun nañ ko tënk ci wàllu sécurité maanaam kaaraange population yi mën nañ ko tënk aussi ci wàllu trafic ku waroon fay ay taxes doo fay taxe wala ngay jàllale loo xam ne dañ koy tere dañuy jaar ci point de passage non officiel yi aussi litige maanaam genre xàccoo buy am ay temps xaccoo yu ndawul la ci diggante population yi man euh, Sénégal laa dëkk maa ngi bëgg a dem jël tool boo xam ne Gambie la nekk wala contraire bi Gambie laa dëkk yu demee noonu du doon coow yu mag nag mais ñàkkul ci frontière bi donc loolu yëpp lañu bëgg won population yi gannaaw ñun ñu yor kaaraange dañuy ànd di patrouille di saytu lu fi nekk yéen mënu leen am jafe-jafe seen biir ndax ci kaw suñu kilifa yi dañ décidé pour ñu ànd que xam nga ne luy lu rafet la dëgg la colonel Coulibaly bi bi ma ko xamee ëpp na fukk at ci wàllu suñu liggéey laa ko et ñeneen ñi nekk fii aussi officiers yëpp dañu xamante ñii dañu bokkoon ay écoles yi de formation ñii dañu xamante ci ay théâtre d'opération ci àddina bi ñii aussi le fait que ñuy dem souvent euh, euh, di traverser Gambie di jóge Casamance wala di fatam tax nañu xamanté donc suñu andé maintenant nak ci frontière bi nga xamanté ne yalla dafa def loolu bo ñu bolé au lieu que ñu def ko problème ñu def ko solution di dalal xelu euh, population bi loolu dafa am solo li leen waxul moy dinañ ci bolé ay action civilo militaire manam dañuy tànn ben bërëb la population Sénégal ak Gambie nous ñëw ñu saytu yaram jox avons dara loolu nous ko def biir en tout cas durée patrie, bi la population yi différence parce que loolu mooy li am donc vraiment frontière bi dinañ fexe ba nga xamante day zone même que ci euh, mu euh, colonel du commandant zone euh, militaire numéro 3 ñu des ba tey ca boobee euh, daje waxtaan mu nekk nag loo amal ngir nag gën a askan commandant bu deuxième bataillon d'infanterie ca Gambi, Gambie moom nag daal dina Digente prox rafetlu Sénégal ak Gambi, mon Ibrahim, Ikunubali, daal dina micro télévision du salon. suñ ñaari chef mooy suñ chief of defence staff di lieutenant general Mamad O Cham ak seen chief of defence staff bu Sénégal ñoom ñoo waxtaan toog seet ne Gambie ak senegal ndig li yi di wax moo fa nekk benn bopp kenn mënul leen a xaajoo dañ war a jël suñ security yi ñu waxtaan ñu boole leen ñu mun a liggéeyandoor ñu seet problème yoo xam ne ñu ngi xew si suñ booda yi ñu seet naka lañ jafe-jafe yi am si booda yi ñu seet naka lañ saafare jafe-jafe yooyu noonu ñoom ñaari kilifa yi nag bu ñu waxtaanee e, ba déggoo dañ ñu bindoon ñin mi nga xam ne ñu ngi liggéey si seen ron te nekk si di liggéey si bataillon yu nekk si boori booda yi boole ko suñ ami commanda bi ki commande armée Gambia bi ak député chief of staff bi ak deputy chief of staff bu Senegal bi ñu tassé kasama siganso ñu waxtaan si ay yu démé noonu muy waxtaan bi mu ngi nekkon ci wéri January on the 15 of January si at bi ñu nekka 2024 biñ fa démé nak ñu waxtaan ñu nit tañ fa démon ak ay sun kelifa ñu waxtaan ñu oñu fa ñun mi ay battalion komanda ay zone commander yi ñun yépp ñu téwo waxtaan bi bu ñu waxtaanee ñu déggo ñu juboo ci lañ ñew Eh, ñu plan ne dañ war a am border patrol border patrol nag mooy comme dañ suñ booda yi dañ war a eh, jéem a góorgóorlu ñun senegal ak Gambie ndig ñun ñoo seqoo booda yi ñu méngoloo nekk benn jéem a indi kaaraande kaaraange si ñaari réew mi te lii du mun a am su fekkee ne déggoo amul diggante armée Sénégal ak armée Gambie ndig suñ toogut ñu waxtaan Gambie ak senegal dañ dugalante digalanto boo xam ne léegoo léeg di nga gis armée Gambie ñun dinañ nekk di patrouille ñu dugg biir Sénégal sax ñu foog ne ñu ngi Gambie xam nga soo duggee dekki jàmbur te yaa ngi amee gànnaay ñoom it seen armée buñ ko yëgee te yëgoowu leen mun naay indi musiba waaye léegi fi mu nekk waxtaan nañ déggoo nañ dañ bugaat fi mu nekk ni su patrol jotee dinañ organise patrol boo xam ne nekkul ne comme armée Gambie rek ñoo koy def nekkul tam armee Sénégal rek ñoo koy def dañooy mélange et we dañoo mix jaxasoo daal dañooy jaxasoo. ñu nekk comme ben élément ñu patrol da Sénégal bi duga Bir Gambie génnaat Gambie duga Sénégal gennat Sénégal duga gambi nga xamné jafé jafé yu am si booda bi dinañ ko mëna safara addu ti benen bir soxal nak aljuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar ñent bi nga xam nak ci la ñuy wajjal li li nga xam ne mo jëm ci wataayu ngalax gi fii ci diwanu Sénégal. ñi di yaa taskati xibaar nag daal nañu dem ca biir marché ba waxtaan ak ñi nga xam ne ni ñoom ñu yëngu ci wàllu wàllum jaayum buy naka noonu ni ak tigadége ba Badiane moo leen seeti woon ñu teewlu ku wax li di feetu pak sa xel dem ci li nga xamante ne nag mooy la ñuy baaxoo di def muy ngalax euh, du luy gën a suuxat diggante euh, ñii di euh, jullit ñi ak ñi féete ci jàngo bi muy xeetu lekk boo xamante ne la koy defaree bokk na ci li ñuy di pee tigadege ak buy ginnaaw ba ñu demee ci marché bi ñenn ñi yëngu ci jaay ba nag lañu gis mooy client yu néew. non ñëwuñ ñëwuñ ñëwuñ ren ren ni mu demee gis nga ko heureusement lu xam ne ten sax tenewut parce que at yii pass daa jaay lu bëri ba nga xam ne daa jaay mais ren moom dëgg la ñaari événement tombé na bu musulman yi ak bu jullit bi mais terewul ba léegi nu mu waroon doxee daa doxee ko ba léegi. buy ren gisuñ ko buy saal mi ren gisuñ ko li fa ëpp li ñuy jaay mu ngi jógee Mali xam nga jaaykat bu ne soo sañoon soo yore sa bagage di jaay am koo jënd euh, soo soo tegee sa bagage doo koo jënd. ko ja eh, jaaxle jaaykat la. ca beneen côté. waa ji eh, mi ngi gis boppam. bu baax ci wàll wii mu féetee di lu mu xamle. waaw bien sûr wal si nañ bu baax feet pag bi moom wax dëgg yàlla tout le temps dañuy dégelu bu baax a baax waaw machine yi moom lu mu ñàkk ñàkk daw su pag bi jublu see waaw wax dëgg yàlla dañuy liggéey waaw wax dëgg yàlla période koor moom daana xaw a metti tuuti mais ren moom ak alhamdulilah. feetu pag di nag wane njeextalu kooru suñu mbokk yu féete ci jàngo bi ginnaaw ab diir boo xamante ne delluwaat nañu ci yàlla ci njéggale waaye itam ci gën a mën a déggoo ak seeni dëkkandoo cant ngërëm ñeel ko moom Mariama Badiane addu wax ci leneen jëm rek ci xarale yi ak na ko askan wi di jëfandikoo bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi ñoom nag daan nañu ko ŋaan ñi ñeneen ñi nag la ñu xamle moo di rek faaw rek waajur yi bàyyi xel bu baax seen i doom naka la ñuy jëfandikoo yooyee xarala yatal gi ak Sidi Mohamed Sa di Sankhare si njëlbeen ñu gis ne li nga xam ne moom moo nekk réseaux sociaux nekk na ab mbir moo xam ne mbiru jàngekaay la woon ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko doon utiliser daan nañ cee jëlee ab xam-xam waaye jamono juñ toll ni nekk na ab mbir moo xam ne conception boobee ñu bëri nangatuñ ko ndax li nga xam ne moom moo nekk utilisation bu bon bi nga xam ne moom lañ koy utiliser loolu tamit nekk na ab mbir moo xam ne naqar na li nga xam ne moom moo nekk askanu Kaolack ba tax ñu ngi ciy yey yàbbi. te bu njëkkoon dama foogoon ne bon réseaux mu nekk TikTok wala mu nekk Facebook ak lu mu munti doon man dama japp ne peut-être gaay dañ ko jëlone tubaab bi bok biko defar mom da ko pour liggéey di ci woné say marchandise bon wala nga ci annoncer say ay annoncement yo xamné peut-être ay la ak yoy non mais légui dañ ko jël daf ko kay bo ne nit ñi dañ ci xexé ñen ñi di si santager parce que da ngay gis ko xamné ne day jël kilifa nek ak mom ci nek dafa ak mom lu ko neex. ba pare génnee ko yónnee ko ko di ko chantage. léegi sax commencé nañ ko def ay tànnaat di si xuloo ngay gis kii nekk fee dakaar ki nekk Kaolack ñu si xuloo di ko dugal ñii di si ut ay vues ñii di si ut lu ne. am na ñoo xamante ne dañ siy dugg nii mais dañ siy wax loo xamante ne ñoom wóor na leen loolu xamuñ ko dégg nga am na si ñoo xamante ne ñu ngi wax loo xamante ne nag xam nañ ko mais lu si ëpp moom soo xoolee moom ah, sabotage la gars yi dañuy saboté. Ah, si biir loolu ñu bëri jàpp ne li nga xam ne moom moo nekk responsabilité boobee mu ngi ñëw si li nga xam ne ñoom ñoo nekk jur yi ndax war nañ def li nga xam ne moom moo nekk contrôler seen i doom si li nga xam ne moom moo nekk jëm si li nga xam ne moom moo nekk réseaux sociaux yi waaye tamit ñu ngi invité li nga xam ne moom moo way jur yi ñu saytu bu baax li nga xam ne moom moo nekk seen doom yi si li nga xam ne moom moo jëm si wàllum réseaux sociaux bu baax a baax man sensibilisation bi dama ko jox parental bi parce que doom bu amee téléphone nga jëndal ko ko nga ñàkk jëndal war nga chaque jour soo ko mënul chaque deux trois jours nga jël téléphone am xool lan moo nekk ci biir ak yooyu noonu ci parents yi la des quoi. na parents yi jël seen ay matuwaay sensibiliser seen doom yi parce que léegi da ngay dugg ci kër sax nuyoo sax duñ la dégg koo ci gis mu ngi tiim téléphone am papa jaa ngi toog fee tiim téléphone yaay ji toog fee tiim téléphone doom ji toog dugg ci biir néegam tiim téléphone am léeg-léeg da ngay nekk da ngay yor sa doom mu nekk si biir néeg bi. ay ay deux heures trois heures di matin nekk si téléphone mais kooku liggéeyul peut-être élève la wala jàngul wala deful dara mais téléphone boobu mu tiim am na si lu mu nekk loo xam ne tey jii soo ko si bettoon du la neex léegi nag sensibilisation boobu noonu foofu la war a njëkkee ci parents yi parce que bu njëkkoon éducation bu amoon ak léegi bokkatul léegi da ngay gis ne doom yi ñoo jiital seen parents yi doom yi ñoo jiital seen parents yi da ngay gis si école yi sax da ngay gis école yoo xam ne da ngay dem xale bu yor téléphone nekk si biir classe bi suñ ko nangoo papaam mooy xëy suba teel dem si école bi dem jëli téléphone bi ñoo joxaat ko. ah si njëlbéen li nga xam ne moom moo nekk numérique li ko taxoon a jóg mooy lenn kese la woon mooy li nga xam ne moom moo nekk jàppale li nga xam ne moom moo nekk doomu aadama yi. waaye jamono jii ak jëfandikookaay yu bon yi nga xam ne ñu ngi koy def nekk na am mbir moo xam ne danay loor lii di askan wi. mbokk yi yegsi nañu ci xibaari de réew yi xibaari la rédaction télévision bu rapport bu yees bi nga xamee ni kuréel gi lii di mbootaay xeet yi daal nañu ko nag fësal jëm rek ci wàllum yàqum dund gi ñu nemmeeku mu nekk nag téeméer boo jël daanaka fukk ak joxoom ñeent nekk dund boo xamee ni dañu ko produire file ci biir réew mi ci mbir mu ni mel nag ñu ko ci atum 2022 ba tey jile yooyee ku ak juróom-ñeent bu ñu ko xayma sax mu war a toll ci ab benn milliard ak lu toftal ci ay tonnes yoo xamee ni daanaka yàq nañu ko ci réew yoo xamee ni lu tollook juróom téeméer ak juróom-ñett ak ñett at ci ay million yi doomu aadama ñu nga fay jànkuwanteeg ab xiif bu tar jamono ji nag crise bi nga xamee ni moom moo jëm ci wàllum dund bi dafay gën di law bokk na ci la ko yokk jàmmaarloo yi ndoxoon ci diggante Israël ak Hamas ak itam cong yi ñu doon amal ci réewum Haïti ñëw nag gën a yokk mbir ma loolee tax nag ñi nga xamee ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllum saytu wàllum xiif bi la ñu xamle moo nag ca noor bu band bu Gaza la mbir ma gën a tare waaye fi nga xamee ni moom moo jege réewum Haïti ñi li di député français yi ñoom nag daal dinañu ñaawlu ci alxames ji jàmmarloo yi nga xamee ni doon dox ci diggante yéen ci takk der yi ak manifestant yi nga xamee ni ñoom ñooy yeewoo ca boobee diwaan di France ñoom nag la ñu ko jàppee moo di rek jàmmarloo yoo xamee ni la ñu fa gis ci ay deret mu tuuru bari na lool mu nekk nag ab étape boo xamee ni saa su jotee rek réew ma dañu ko war di fàttaliku bu baax waaye nag dañoo gis ni autorité yi jëluñu ci benn dogal ginnaaw nag ba ñu ko tegee ca kanamu assemblée national bi chambre bi ak ci parlement bi ñoom naka daal dinañu ko wootee ñoom naka lañu ñu am moo di rek juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci fukk ak benn ginnaaw nag mi nga xamee ni ñu nga cee jéem a wut bëccëg boo xamee ni dañu leen koy jagleel. ginnaaw xibaar yi biti réew yi ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram ànd ci ak Ousmane Seck. Afrobasket féminin 2025 réewu Côte d'Ivoire moo koy daal di organiser daal di nañ ko jox ci samedi ak dimanche bi lay passé ki ko ko jox nekk kuréel gi nga lépp lu jëm ci wàllum basket seen ndog Afrique ko ko daal di bile compétition ñu war ko door ci weeru juillet 2025 bi nga xamante ni dana fa amee fële sa Abidjan ñi nga xamante ni mooy équipe bu Côte d'Ivoire bi lee am chance bu baax a baax jongante ci seen biir dëkk waaye tamit jéem a xeex ngir terminer ci place yi njëkk yi nga xamante ni moo doon li ñëpp di bëgg a ñu jànn ci leneen ne fukk ak ñetteelu édition Jeux africains yi ñu doon amalee fële sa Akara maanaam sa gana Sénégal daal dina ko fay jeexal ak ay médailles yu sakkan moom mi lee nga xamante ni bii mooy gulet mu daal di jël douzième place bi si Jeux africains yi nga xamante ni ñeent fukk ak juróomu pays ñoo ko doon jongante Sénégal daal dina ñëpp si ak ñaar fukk raaye ak juróom-ñeent si biir ñaar fukk ak juróom-ñeent yi la ñeent or la juróom-ñaar di argent waaye tamit fukk ak juróom-ñett ñoo di yi nga xamante ni Sénégal yi daal dinañ ko fay gagné si compétition bu ñu xoolee bu baax ni ni mel uute ak compétition bi nga xamante ni passé woon na maanaam si atum 2019 nga xam ne Sénégal mu ngi jëloon ñaar fukk ak ñaareelu place bi daal di am benn médaille or bi nga xamante ni amoon na ko juróom argent waaye tamit fukk ak juróom benn médaille bronze la Sénégal yi amoon. mbokk yi boobee ponk sax moo ndax képp jotaay bi jaajëfal ngeen ñu féete woon ci teewlu bi di leen jox dig daje ci yeneen i jotaay di